ala am envie village waaw ah, loolu lim ñàkk rëy na te kenn mënu ko quantifier kenn mënu ko qualifier. Mhm. ah ñun personnellement bokk euh, am na am na sur plusieurs plans Gaston daf ñoo marqué et nekkoon nag suñu premier partenaire. Mhm. quand on est boo gisee sonn ñu trop tamit Gaston daf see joué rôle bu am solo rôle d'encadreur rôle de conseil rôle di di orienter. Mhm. di jubale. di waxtaan ak toutes les composantes autour du CNG honnêtement je vous dis que c'est une très grosse perte pour mm-hmm. le Sénégal pour le monde de la lutte euh, fi mu gën a doy nag pour wan la ni suñu lien ak moom c'était trop fort bokk nañ ñun ci CNG je veux dire nit ñi ko mujjee am contact ak moom mm-hmm. tellement que daawuñu toog semaine malgré sa maladie mm-hmm. te échanger wuñ sur l'actualité de am na benn bis déplacé wu na ñëw ba arène nationale en pleine maladie je dis bien président Bira nekk ci kaw tribune officielle ñu woo ko ni ko yaa Gaston qui est en bas kenn gëmu ko il a ñu wàcc man ak moom ñu ñëw fekk ko ci biir otoom mu ne daa toog di seetaan télé gis benn image boo xam ne il faut mu ñëw wax waxtaan ci président Bira pour xool lu ñuy corriger à ce que image boobu dootul amati. xam nga ça pouvait se faire au téléphone. Mm-hmm. mënoon na ko def le lendemain. séance tenante la jël otoom ak chauffeur ñëw ba biir arène national woo président Bira président Bira wàcc ñu échanger waxtaan sur ce point muy soog a ñibbiwaat. Mm-hmm. on naa revenait pas ça c'est pour montrer l'homme mu amaat beneen qualité boo xam ni euh, peut-être mën nañ ko tuddee woon au début défaut. mais qui faisait de lui une qualité ak loo leen mën a jote su xamee ni moom moo la tooñ c'est lui qui prend son téléphone wala c'est lui qui se déplace vers toi ni la baal ma àq humilité boobu bëri na ñoo xam ne ñun boo amuñu ko en un mot daal vraiment euh, on a perdu un père on a perdu un conseiller on a perdu un grand ami di ko ñaanal rek fa mu jëm yàlla na ko gënal fuuf fi mu jóge hmm. di ñaan également yàlla sàmm njaboot gi mu fi bàyyi hmm. et surtout makkan bi ki bi jël relève bi muy doomam hmm. di ko ñaanal vraiment lépp luy lu baax li papam def yàlla na ko topp moom it ba mu def lu lu ko raw foofu demoon nañ ci levée du bi mais seede yi ñu indi ñëpp nag que ça soit sa famille naturelle que ça soit ses amis d'enfance que ça soit ses amis du monde de ku si nekk da yaakaar ni yow rek la Gaston seqaloon si àdduna honnêtement hmm. toog nañ deux heures de temps si levée du corps bi hmm. ba il a même failli que ñu xaw a boudé pour euh, demander à ce que ñu arrêter liste orateur yi hmm. parce que tout le mone voulait parler ku si nekk ku si nekk bëgg nga wax ndax am na loo séq ak Bombay euh, loo séq euh, Gaston à moment donné de la vie et bëggoon nga dernier instant yooyu nga indi ko comme seede Sénégal ñàkk na monde de la lutte ñàkk na ñaanal ko moo fi des defi daal